wal quraan te mooy al quraan alaasima jële aji mag jox nañ la faatiha ak al quraan kon nag laa tamu danna bul tàllal ay i ka ñaari bët ilaa ma mataana jëm ci lañu nga bëgg di jëm aswaajan ay xeer de minum wala am nga faatiha fi kitaab bul xool mukk àddina ji nga xam ne moom lañ jox ñeneen ñi wala tax fan bul jàq ale ci ñoom te bul jàq bu fekkee gëm nañ bu fekkee gëm ñëpp bu mu la jàqloo waxtu nooyalal janaa ak wàllu sa nit ñi ñu ñeel way gëm ñi te naka nooy ci kanam ñi nga xam ne gëm nañ la topp nañ la jooju laa yàlla ngi ci wax ak yeneen tam naa ko jox naa la faatihatul kitaab mooy alxuraan ju màgg ji kon nag bul xool dara ci taari àddina yi doy loolu faatihatul kitaab moo tax yonent ne sallallahu alayhi wa sallam def ko yàlla may nga gëm yàlla wattu faatihatul kitaab nga defe ne yàlla may benn jaam lu gën lam la may kon màggal nga lu yàlla tuutal te tuutal nga lu yàlla màggal de loolu mooy may goo xam ne mooy màggal may goo xam ne dafay dëppatoog borom ci def yëpp ñu di ko tuddee may abal rek la wala dénkaani moo tax yàlla nangu ko jox bépp firawna bépp ñombóor bépp faset bépp xéefar bépp mooy katab yàlla yàlla daf koy jox wërsëg de aas nag ay yonentam ci waliyoom ak jaamam yi ragal yàlla daf leen di xaat ci àdduna naka lay xaate sakku feebar waaw ci ñam yoo xam ne daf ko yokk feebar de moo tax yonent ma sañ koy indil addiye téeméeri gëléem gëléem yu xonq yaaram gëléem gu jigéen gu xonq gën a tedd jaarale yaaram comme leen xoolee dafa gëmm de man yàlla ak ma wax naa la tamu gannaaxe kay laal ma tana bi aswajan te mooy gën di lépp loo xam ne yaaram moom na ko rek moo ko gis yóbbu leen ci bayti maal jox leen miskin Omar ba mu gud buuru jullit ku xeewu la woon ci dundam waaye bañ ko falee buuru mburu ak diini nag kese rek la koy rende noonu loolu lay lekk da ne yaramam ñu meloon ba muy Omaram kese dafa mujj soppeeku abbaam bi mu sol tax na ko daax daax ak ñaar te mooy buuru jullit te ci jumaa am na defi jumaa ñu nekk ba waxtu yu bëgg a wéy su ko bëgg génn ñëw abaam nee na sama mbubb si dafa tilimoon ci ko tama moom laa doon xaar xaar si dina maa weeta si dina maa weeta moom ku bëgg àddina defal nag ak ñun ay maa yaa ngi xeewu di sañse di gëttu ragaloo yàlla wax la ne asabtum sayyi'aatikum fa aatikumud dunya lekk nga sa wàll ci àdduna waaw yaa tawassul dem tey jëm yàlla ñu ne la jël nga sa wàllu jaari mi mu ne ko Omar jëmal feneen man sama bakkan bi duma topp ci mooy yàlla lépp lu dagan nag man duma ko baaye. barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan.